seen teewaay di nuyu aussi ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndaw yi nga xamante ni ñoo ubbi seen bët tey ji xool ndax taxaw temm ngir bañ lii xew ci dëkk bi muy li ñu président Macky Sall bëgg a président Macky Sall boobu nga xamante ni nag moom mooy candidat wu Benno Bokk Yaakaar seen bennoo boobu ñuy def noonu pour gëlëmal askan wi de si liggéey bi mu nekkoon bi mu entamé woon depuis 2016 maanaam réduire l'opposition à sa plus simple expression maanaam néewal doole opposition boobu si liggéey boobu la nekk di ko continuer ba tey tey jii nag ndaw ñi ñoom ñoo ne euh, euh, coono googu mu ñu teg doy na ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk si opposition bi ci loolu ñu ne ko moom président Macky Sall ak lieutenant yi mu àndal wala bras armé yi wala ñooñu nga xamante ni sax mën nañ leen woowee ay traître

période bo xamanteni aussi Karim Wade mu ngi mu exilé ken xamul si lan la radio ko ci liste électorale yi si volonté si lenn lo xamanteni rek ragal moko indi ak ciuné ba tax muy piétiner code du Sénégal bi nga xamanteni mom mo régir élection ñu ne ko temps bobu nonu aussi Macky Sall mu ngi yàq deru Sénégal kanamu Sénégal xar kanam bu lëndëm la am fi mu nekk ni ci aduna bi fep fo dem ken nawatuñu ndaxte nak dafa am ay charte yo xamni mo ñu régiron par rapport ak yenn

état de droit ku mu xamoon nañ fan la sa droit yemoon fan nga mënon dem te justice daf ko doon doxal ci yoon tay ji justice sociale bi bo xolé lepp mu ngi soxé lepp a lepp mo foté fóote donc ñu né euh les mouvements et les les libertés des mouvements waaw ñu né su Macky Sall aussi lañu gis que ni dëkk la boo xamante ni lu neex waay def day làq doom dóor doom maanaam juste su kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am te loolu ñun ndaw ñi dootuñu ko nangu dootuñu ko permettre muy tëj ku ko neex wala muy bafoué li nga xamante ni mooy cartu ndayu réew mi nga xam ne si lañu war a tënk suñu bopp pour mën a dem te ci loolu dañ koy wax rek ne ko ñun ndaw opposition bi tey bu xoolee table bi ni mu toogee dina xam que ni ndawu Sénégal ndaw mi nga xamante ni ñoo jege askan wi ñoom ñoo taxaw pour wax ak moom dañ koy jox benn signal rek nag

mu rétablir Karim Wade mi nga xamanteni candidat parti démocratique sénégalais ci ay droit té nak li gëna metti tay muy askan wi coone gi ñu nekkee ndox mi ñu wax ko té bayyi tour lëndëm gi ñu nekk di tour lëndëm askan wi dañu wax ndox mi kañ lay déllu ci té exigence la bo xamanteni ni ñëpp ñoo laaj té nak mu léral leeral nangu tamit que ni dootu ñuko ko may élection buy am Sénégal manam 24 février 2019 ku bëgg bokk dina bokk té mom du ci mën dara loolu la ko ndaw mi di laaj